fay naa la. maa yaa ngi sa diggante ak Caaka Faye mus ngeen daje. daan naa ko ñaari yoon. yéen ñaar. naa ko ñaari yoon. kon tey da ngay laa bëgg si kàttanu yàlla. waaw sama grand frère la maa ngi koy nuyu au passage grand bu baax la si man moo ñu bool dañuy liggéey ku si nekk boo amee kër nga yóbbu quoi loolu mooy wàññi. damay gis saa yoo génnee ci compétition yi macha allah yàlla dalay may nga bokk ci ñi nga xamante ne dañuy naru secret géant lan la. entraînement rek xam nga ku xool njool mu toll nii xam ne am doole day entraînement day liggéey lu ko jar rek moo tax quoi xam nga di santaat yàlla bu baax heure moo ñëwee rek moom la. du sama man man du sama dara mais toujours maa si liggéey maa ngi entraînement bu baax di lekk ba suur dinaa mën di tudd nelaw xam kon moo ñëwee aw ma doole dañ maa war a rey quoi. wàllu bëre dóor bi Géant fan la ci tool. am naa ñaari combat ñaari victoire mais Géant dañ may daw caatu fa daan naa ko daan téye bu dóor dóoraat. fii ñoom ñaar ñu final mais gannaaw dañ may moytu na ma gannaaw yi jël ngir yàlla. fan mooy sa ma jox ma jël. ñan ñooy sa ma ko joxee waaw. Rambo xam nga nu mu la kii waay booy Kaasa nan ma ko jox amul amul amul combat waaw loolu dafa neex yow. dama la dul gis ci bëri door bi ngay damay compétir loolu rek. waaw jot amul. <laughs> waaw.

Ndiaga nuyu naa lay fay. maa ngi sant bu baax. naa laa gis mais tey da ngaa ñëw finalu sa secret lan la. waaw waaw waaw maa ngi nii rek. chaque jour maa ngi si entraînement yi xëy na la muy teg day fekk lu ma pare pare si quoi. am nga ki nga am Zaya Abu Barñe mos ngeen a daje. dal na ma deux fois mais nag terewul suma boy la ko waa sport moo demee noonu waaw waaw. ma ko nee na yow garaam nga ku baax. noo dafa suma boy la du ñu umpante ci dara mais fii nag amul booy amul grand quoi sport la terewul lu mën a xew bu ñu ñibbee dañuy nekkaat benn waa kon bonne chance. merci beaucoup. ndeysaan. ki bon di ñu teel a joxe verdict ndax bu bii jeexee dañuy joxe victoire bi ñëpp ànd ñibbi. animation des drapeaux Adama Gaye da nga noonu Yeah. Ndeysaan bu ñu fi final bi rëccoon xaw ma bu ñu demee lu yox waa koñ ba laay ay waay lii bu ñu rëccoon waay ndaysaan final baa ngi noonu mbokk yi arbitre bi sifflé na Géant bu Bargny moo la féete ndijoor Caaka Faye moo la féete càmmoñ dimanche 3 juillet 2022 stade Iba Mar Diop les moo ñu fi woo mise bi 3 millions la raw gàdd bi jeex na poids léger bi jeex poids lourd bee ngi nii ay ndaanaan a doon compétir ay ndaanaan di toog ay ndaanaan di dem ba finalu dox ci diggante Géant bar Bargny ndaysaan ak Caaka Fay ñuy félicité bu baax ndaysaan képp koo xamante ne yaa ngi les arènes jiital ko ci bopp bi Abou Ndour Babacar Yakamar ak képp koo xamante ne yaa nga fa suñuy frère lañ ñooy bokk di nekk ci terrain bi félicitations les arènes mbokk ñu ngi noonu ci teewaayi Cheikh Bamba général saltige caajaay ma nga ca kaw mbokki ci teewaayu Père Biram ñëng agent wu Modou Xarañ Lo ma nga ca kaw drapeau Modou Xarañ Lo la ñuy bëre jàppante nañ daay la la la wicc na ko wicc na daan wala déet Zeya tay dee daan na daan na wala déet ba balaal na suuf de caaka fay wër na ko ndomba ni caaka caaka moytul mu rëcc Zeya Bargny caaka caaka fay daan na ko caaka fay daan na Zeya Bargny Zeya nee na daan naa ko deux fois